ñu ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di baalu ñëpp àq di leen baal àq eh, ñu ñëw tey jii ci daaray oustaz Malick Guèye ñu ngi nuyu oustaz bu baax a baax a baax di ko ziar di nuyu waa Ngekoox eh, TV eh, di di leen ziar bu baax ñoom it ci seen Pastef ak seen disponible. ñu ñëw fii tey ci daara ji daara ji nag tey suñu kàddu yi nga xamante ne moo ñuy tax a yëkkati ñu di ko jàllale ci ngekox yëpp ñëwoon nañu fii ci daara ji di jàppale xale yi biñ fi jotee ñëw xale yi jàppale nañ leen ci seen wàllu fi ñu nekk ñu bëgg tey jii ngekoox yëpp ñu ngi leen di woo ñu jàppale ci xale yi mooy seen dëkkuwaay yi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci daara ji ñu bëgg lii nga xamante ne mooy seen néeg bi dëkkuwaay bi ñu bëgg ku ñu ko tabaxal balaa nawet bi defaral ñu ko ba xale yi xam na bu nawet bi jotee ndox mi du mën a yëgse ci xale yi ñu bëgg daara ji ñu jàppale ñu ci ubbil nañu ñëpp nag suñuy bunt di woowaa ngi ko yëpp képp ku ne soxla nañ ci sa sa participation di gërëm ñëpp di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp. salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Ngexo TV di nuyu ñëpp di leen sargal di rafetlu seen ñëw bi. parce que tey dañoo ñëw si daaray Mali Gueye mu nekk suñu dëkkandoo bu baax ñuy yàgg muy jëflante ñun taranga si weeru koor gi ñëw nañ fi def set setal gis ngeen daara ji ni mu setee xëy na moyen moo amul waaye set ñoo nekk na fi ñun ñëwoon nag doon wut si ndimbal si jaam yàlla yi nga xamante ne dañuy def rek te yàlla tax soxna ayda moo ngi nii soxna Salimata moo ngi kër ga ñëwul tey dafa xaw a jàpp ñuy taxaw nag di ñu woowaa Ngexox yëpp suñu daara ji ah, gis ngeen espace bi ñu ngi siy ñaan ndimbal xale yi dañoo amoon ay góom ñu si bëri na jàpp nañ ci ba tey ñuy egsi fi ñu egsi nii ñuy gën a nag ñaan ndimbal si daara ji pour nawet baa ngi ñëw pour ñu teel ñu ko ñu jàppale ñu si daal ba nga xamante ne ne euh, miir bi dinañ ko mën a taxawal pour nawet bi ndox mi mu mën a dimbali xale yi soxna Aida dem na wut ay yére Salimata moo ñëwul Euh, man Ndeye Yacine yaayu daara ji ñu dem ba tey lii egsi fii ni ñuy ñaan yàlla ñu dem a dem a dem ba lépp taxaw fi ba lépp daa yomb oustaz na diñ jàppale si xale yi. parce que doomu doomu ñeneen a ngi fi nekk ay ndongo daara doomu waa koñ bi ñoo ngi fi di fi jàng wàcce kaame di ustaas si dem ba tey muy egsi fii ñu dëkk moom si jàmm daara ji dem nag ba commencé lii nag ñu bëgg si nag taxawu ak ndimbal moom lañ ci ñaan moo tax tey ñu egsi fii di leen woo ci waa ngexoox yi ñëpp daal képp ku gis vidéo bi rek ñoo ngi lay ñaan yàlla nga indi sa participation ñu lay ñaan di ñaan ndimbal daal loolu lañ ci nekkee alali min asheytaan rajim wala hawla wala quwata illa billahi alali alazim wa sallallahu ala sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima Euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di jiital ci nuyoo bi ñii ma jàkkaar lool mooy waa matériel bi waa waa Ngexoog TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di nuyu it waa Ngexoog tuu di nuyu kilifa yi di nuyu monsieur ak ñi mu jaboote ak waa dëkk bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di nuyu kilifa yi imaamu ratib Euh, yaa muallim Dour Sarr ñu ngi koy nuyu di ko siyaar euh, di nuyu ñëpp rekk ak kilifa yeeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ñu ngi leen nuyu di la siyaar euh, lii nag li ko waral tey mooy daara ji ngeen di gis nii daaray alquran la mooy daaray Malick Gaye daara ji nag fii mu nekk. bi mu fiy nekk xawoon naa wéet tuuti bi mu fiy door a ñëw benn mbaar lañ fi def bi nawet bi wàccee ñi sàkket defar ay néegi ñax di toog di jàngale alquran di xaar yàlla moom moom di def noonu ba yàlla dimbale ñi mën a taxawal ay néeg yoo xam ni ay nit mën nañ cee dëkk biñ demee ba si yàgg nag suñu benn mbokk bu dëkk fii ci koñ bi ñi di ko wax pap Diak waxul boppam toxu si fi waxul boppam ba ci daara ji mu ñëw ne ana sëriñ mi ni ko mu ngi nii mu ne mu ne ma dama la bëggoon xàcceel courant ci daara ji ndax gis naa may gi te it ay xale nga yor njaboot nga yor ma bëgg laa dimbale te yàlla tax may la ñetti lamp ma ne ko ah loolu de moom danañ ci sawar waaye jàppal ne nag alxuraan ngay jëflanteel waaw bi ma jëndee ay fil mu may ma ñetti làmp ma balancé ko fii ñuy leeral mu noppal ñi ci sondeel liñ daan jànge ak yu ci bëree bëree bëri daara ji leer xale di gis li ñuy jàng ñu demee ba atum ren mi mu ñëwaat waaxul boppam ba ci daara ji mu ne ma bi ma la xëccalee courant ci daara ji ba léegi yokkute laay gis dama bëggoon nag daara ji fépp fu amul làmp rek nga balancé fa làmp ba léegi nii duma fay courant moom mooy fay moom mooy moo branché lamp yëpp ci daara ji muy leer kon ñi ngi koy ñaanal yàlla leeral ay mbiram ni mu leeralee daara ji yal yàlla leeral ay mbiram te loolooy am ndax alquran moom ku jëflanteeg moom rek yàlla nga jëflanteel te yàlla nee na in tansurullaha yansurukum man ku ma dimbale rek kenn mënul wax ba du la dimbale amul comme dimbale nga yàlla amul kenn ku mën yàlla dimbale la waaw ci biir loolu nag soxna si ñuy wax soxna Ndeye ay doom di jàngee ci daara ji muy waaxu di dikk di dem ak a ñëw di gis xale yi xale yi di dem këram mu di leen yaatal di leen toppatoo léeg-léeg xale feebar sax mu faj la te du ma ko yëg jëndal la ordonnance ñi dem ba si yàgg mu gën ko yaatal waxtaan ak soxna Ayda fay mi nga xam ne bàjjenu gox la ak ku ñuy wax soxna Sali ñoom ñaar ñi takku àndandoo ñëw ci daara ji bi ñëwee gis daara ji gis xale yor ay góom gisit ni daara ji di dundee ñu am ci taxawaay am ci ñeewante jaayante jël seen alal wut ay garab ñëw indi ci daara ji ba garab yooyu léegi féete na boor daara ji feebar yooyu moom dañ na ñu ngi ci sant yàlla jënd seen bërigo ñëw tegal xale yi jënd ay bale ay saabu ay yére lépp ñu indil ko daara ji kon loolu ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di sant waa koñ bi it suñ dëkkandoo yi nga xam ne ñoom lañ dëkkal ci koñ bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di nuyu imamu koñ bi ak chef de bi ñëpp ak suñu dëkkandoo bi di Ablaye mu dëkk fii moom magam ñu ngi koy nuyu di ko siyaar moom it ku am taxawaay la barki démb rek ndimbal lu yaatu la indi ci jàkka ji fii kon moom it ku diine ñor la jafe-jafe daara ji nag mooy problème mu dëkkuwaay lañ am. ndax ku ñëw ci daara ji yaakaar naa ne daanaka yaay gisal sa bopp boo xoolee da nga gis ni taalib yi dëkkee ak mbaar mi ñuy jànge waaw te alxuraan jaral nañu lu romb lool nga xam ne bu ñu amoon benn moyen bi daara ji étage lay doon xale yi dëkk ci étage di tëdd fu nooy ventilo di leen upp ñuy jànge fu baax loolu lañ soxla ci daara ji ba képp ku ñëw xemem daara ji ndax alxuraan ji moom mu ngi fi. njang mi mu ngi fi macha allah ñu koy sante yalla ndax daara ki lañ jangé te daara jooju kenn réeréwul senum njang waye ku ñew ci daara ji it yaakaar naa ne daanaka buñ la waxul sax li daara ji laaj yaakaar naa war nga xamni daara ji amna luñ soxla kon lolu mom moy soxla dekk way bi mu ngi ni ay neegu ñax la mbar mi jangé mbarum seng la bu yalla ji tawé taalibe yi duñu am fuñ dëkk daanaka léeg-léeg sax buy taw dañuy taxaw sebet waaw duñu am fuñ teud waaw loolu nag euh, bariwul bariwul ndax am na ñoo xam am na ñuy dugal seen loxo léeg lekk waaye bariwul waaw way juru xale yi léeg nga gis koo xam ne dana la warlul dara tuuti waaye du bari waaw te loolu benn benn la fi rek daanaka am na ñoo xam ni xëy na seen doole matewu ko te bëgg nañ seen doom jàng am na ñoo xam nag ah xëy na sax seen doole mat na ko waaye xëy na seen xel yeggu fa waaw loolu day am. waaw seen xel yeggu fo waaw lool loolu lu am solo la ndax euh, loolu moo waraloon sax bi lii amee soxna Ndeye Yacine parent de d'élèves fi nga xam ni seen doom ci daara ji former benn groupe di ci jokkoo ñoom pour soññi leen loolu nag ñu ngi ci tànk yooyu loolu ñu ngi ci tànk yooyu. waaw dundin ndongo yi moom bu ñu xëyee danañ yalwaan yi danañ dugg ci biir dëkk bi yalwaan waaye yalwaan boobu du leen tardeel jàng. ndax daanaka bu ñu yelwaanee 9h ñu ñëw 9 ci suba gi ngoon gi euh, ngoon gi amul yelwaane waaye am nañ yaayu daara ci koñ bi ñu mel ne ñoom soxna Ndeye Asine ñoom soxna Ayda ñoom say bu ñu xëyee suba gi daal lañ yelwaani am tuuti wecceet ñëw añ bi moom soxna yi ci koñ bi dëkkandoo ci moom sosuñu benn xale boo xëyee daal yelwaane loo am indi parce que ñun njàng mi moo ñu gën a ñor. boo xoolee daaw wala daaw jig def nañ fii benn conférence xale biy jàngale fii moo moo doon tari alquran keroog ku teew ci conférence bi kontaan nga ndax alquran jiñ jàng fii. Euh, daara ji waaw am na ñu fi génne nekk ci yeneen daara di yokk seen xam-xam ñooñu nag jàppaguñ ci dara ndax ñu ngi ci. waaw ñu ngi ci wut am na ñoo xam ne génne nañ ci daara ji ñu ngi faraatu seen liggéey demeegul noonu. am ñoo xam ne bi ñu fi jógee sax yàggul noonu waaw yooyu nag yegg seegu fi dara yegg seegu fi waaw yooyu moom yegg seegu fi ndimbalu dëkk bi yi ñëw ci daara yi loolu yegg seegul ci daara ji kàddu gi ñu tëjee balaa ñuy tëj espace bi ngay gis nii waxtaanoon nañ ci ak euh, monsieur le maire ba mu lijjantil ñuy këyit bañ ba mënoon ko mosquée lañ fi bëgg ak internat. waaw fi daara ñoo ko espace bi mu dàkkarloo ñu bëgg fi mosquée ak internat loolu lañ fi bëgg ñu ngi sàkku na képp koo xam ni yàlla dimbale na la te ngay def te yàlla tax ñu ngi lay tàllal loxo di la sàkku ndimbal ci daara ji ak dëkkuwaayu daara ji ak lépp lu daara ji di soxla ñu ngi ciy ñaan dimbal daal fu waay mën a nekk rek xewuñ kenn ñëpp rek ñëpp bàyyiwuñ kenn incha allah sama kàddu gu mujj nag mooy ñi ngi sant ñëpp waaw sama numéro téléphone 78 213 54 33 78 213 54 33 mooy sama numéro malik gay, campement ñi gërëm it yoxe TV yëpp ñu ngi koy ñu ngi leen di gërëm yombalal ñu liggéey bi ñu ngi koy sant yàlla di ko ñaanal liggéey bi jëm kanam ak mboolem ñu mu àndal ci liggéey bi rek waaw ba mu am télé bu mag passé fii yëpp ñu koy ñaanal incha allah te loolu am waaw daara ji moom incha allah maanaam ku ci dugal sa loxo rek moom ca kanam nga jëm incha allah ndax alxuraan la te alxuraan lépp lu ci waay def rek sa bopp la kon yal na yàlla dimbale ñëpp ñu ngi sant ñëpp di sant jigéen ñi samay soxnaay bopp it ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak euh, waa koñ bi yëpp ñu ngi leen di gërëm ak dëkk bi yëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. votre chaîne Ngeko TV. Ngeko TV, c'est une chaîne télémédia bi leen gën a jege. pour